donc live bon euh, pour une réponse à ci Aïssatou Diop euh, par rapport à Guy Maurice, ce qui est ci carburant à travers ce Diop Fall journaliste yi que en fait dañu arguments. argument parce que argument yi en fait Guy su vous ne bëggul bu Shell wala Total na Guy ou wala bu parce que

dañuy déglu li wax mais avant ñu déglu li mu wax wax na il la traite elle a traité de tous les noms ay yooyu espèce ba tudd lu ñuy énergumène et énergumène boo demee si euh, la définition de énergumène mooy lan une personne exaltée qui parle gesticule avec véhémence excitée et forcenée boo ko doon wax ci wolof mooy nit koo xam ne dafay bax buy wax dafay yëngal ay loxoom di sànni boppam di yëngatu fu nekk ak dëgër nag nduróog koo xam ne nii dañ koy dañ koy xamb mooy excité ba pare nduróog lu muy def yëpp da ci boole doole donc ku mel noonu moom mooy une personne euh, comme comme ni mu ko waxee mooy énergumène donc

maintenant ñu déglu li mu wax. tey naan ñeex ba tey naan ba bëgguma meew ma waaye maa ngi yàqu ci ca la meew ba euh, fa meew ba jóge moom la a def mooy li a flagrant li mu moom nan dëgg léegi nag euh, moom may may may fàttali tamit ne gii nii bu amee ñeenti roues di xam lu ñëw essence. xale bi naa naa ba bon li si gëna am solo moom mooy en fait li mu wax né auto bi bu bu euh, mu am tubaab yi ñoko ko légui il faut ñu xam dara muy téléphone muy auto muy appareil yu bari moto ci science ak technologie wala avion wala bateau nekkul benn dëkk moo koy defar nekkul benn nit moo koy defar nekkul benn société moo koy defar nekkul benn groupe moo koy defar téléphone yooyu yëpp dafa am dafa am da ngay gis Huawei sax dafay liggéey ci ci iPhone lu ci nekk benn fonction lay joué mën na fonction lumière peut-être ñi koy defar seet lañ dëkk da ngay dem nga jënd lumière boobu fonction direction assistée kenn moo koy defar après yow nga nga yokk sa marque donc mën nga créer marque marque boo xam ne en fait moteur bi mën na ko defaree euh, Mercedes muy Allemagne euh, carrosserie bi mën na defaree France wala ñu defaree ko Japon roue yi mën na jógee Turquie donc loolu lépp en fait lu si nekk dafa am lu ñuy def après mu nekk assemblage je pense que usine d'assemblage am na après nag yow mën nga ne sa moteur yow yaa koy defar donc moo tax par exemple ay euh, course auto yi moteur si moteur la ñuy par exemple ay Bugatti wala ñom mën seen moteur mën kenn mën nañ mais mën na am qui xam peut-être ñom moy seen secret mom lañ koy qui légui buñ né qui warul dawal auto Sénégal euh, Touba parce que dafa wax rek ne moom dafa bëgg jënd ci sénégalais boo xam ne moom euh, station ci képp koo xam ne nii am nga xaalis boo yore sénégalais yor li nga soxla li nga war a njëkk def mooy war da war a war juróom-ñaar juróom-ñeenti sénégalais suñ ko amul nga doog a jënd ci keneen koo xam ne ci beneen dëkk la nekk. loolu la juif yi def loolu la communauté yépp yu baax di def mooy xaalis bu nekkee si biir communauté dafa war a circuler parce que yéen yéen a yéen yéen a mayante xaalis donc damay indi ci ci technologie.

ci automobile wala fi automobile di bon qui s'indique njëkk mi ngi George Washington Carver donc moom mi ngi judd 1865 mi ngi inventé li ñuy wax euh, synthétique rubber muy caoutchouc synthétique donc boo auto. Dans le synthétique ñëpp xam nañu dans le synthétique yooyu dans le plastique yooyu donc si auto, li ñuy utiliser si euh, caoutchouc synthétique dans si lépp la mu nekk ci table de bord bi mu nekk ci ci ci ci qui bi nu mu ci roue yi parce que boo xoolee euh, li en Europe ñu de di jël caoutchouc EVA te loolu Belgique mooy Congo li ñoon dagg seen parce que dañ non, soxla EVA bi pour def caoutchouc pour def ay roue ak donc moi, moi, moi, créé lu ñuy wax caoutchouc de synthèse

donc boobu benn la keneen ki mi ngi tudd Gareth Morgan kooku mi ngi inventé lu ñuy wax feu de stop donc les feux de stop moom la ñu utilisé circulation yi parce que avant li amoon mooy go and stop c'est amuloon intermédiaire bi nga xam ne mooy all hold moom moom moo nekk après yellow light mooy euh, orange bi tu vois donc loolu après général électrique daal koy jënd général électrique ñëpp xam nañ ko par rapport ak.

circuit de euh, réfrigération ci auto, climatiseur ci auto, mais aussi conservation d'aliments ci longue distance auto yi mooy xam nga États-Unis état ba état ñuy def commerce ñu ñu euh, aliments C'est un circuit de de de de réfrigération boobu ñu koy wax refrigeration engineer donc mom qui a créé mi tudd euh, Frédéric McKinley Jones junior des moins donc mon nom. moom les bo xolé ci ci première guerre mondiale technologie ils l'ont tellement utilisé à l'avance après ñu York, ñu yox ko yóbbu ko ci euh, bateau yi ko ci avion yi benen bi très important mi ngi McKinley Mackinley Thompson Qui Frédéric McKinley-Johnson qui qui mckinley Thompson Junior donc McKinley Thompson Jr. m'a créé ce qu'on appelle SUV SUV SUV Ni ni ni design les premiers SUV la bokk SUV beaucoup de déggee sport utility vehicle ñu bëri 4x4 là. donc tey boo xoolee design dafa nekk partie bu gën a ci automobile les meilleurs designers dañ leen di parce que oto yi booy jënd yow li ngay gëna jënd li li tax nga jënd mom moy en fait apparence extérieure moy mooy ni ko designé donc l'un des meilleurs designers ayant vécu c'est un noir qui s'appelle McKinley Thompson Junior. donc mom bokku na ñi design Bronco euh, beaucoup de design Mustang Mustang oto boobu daanaka ñëpp xam nañ ko ak le Thunderbird euh, donc talent bi nga xam ne moo nekkoon talent bi ko gars yi yëpp gën a xamee mooy da doon mixer esthétique ak fonctionnalité n'est-ce pas donc keneen ki mi ngi tudd euh, bon entreprise la si à Peterson and Sons donc benn entreprise boo xam ne ñoom ñoo nekk première noire yoo xam ne am entreprise buy defar automobile donc ñoom c'était en 1939 daanaka si lañ fermé parce que avant comme ñoom oto yi ñu doon jënd euh, yi ñu doon defar oto yooyu en fait c'était difficile bu nekkee ne yow mënuloo mënuloo mënuloo mënuloo produire en grand nombre donc fort daanaka moo leen ruiné parce que da nga waroon a euh, commander en petite partie euh, en grande partie du moins en grand nombre pour am bénéfice ci li ngay defar comme ñoom li ñu defar bon bëriwul ils ont été obligés de fermer mais jusqu'en 1939 donc ñoom dañoo defar ay oto yoo xam ne c'est pratiquement fait par des noirs donc ñu ngi tudd Patterson and Sons donc à Patterson and Sons donc CA bi mooy C point R Patterson and Sons donc keneen ki mi ngi tudd Richard Spike kii tey bu jigéen ñu bëri parce que jigéen ñi ñu bëri automatique la ñuy dawal ñu bëri tey bu bu buñ dawalee nañ ko santé Richard Spike bi mi on xam ne moom moo développé lu ñuy wax la vitesse automatique automatique gear shift pourquoi automatique gear shift shift boo ko déggee ci anglais moom mooy changement mooy pousse parce que booy booy booy dugal vitesse en fait boo dugalee da ngay da en fait gear moom mooy mooy roue ay roue la roue mooy roue yoo xam dafa am ay dents roue roue dentelé bon ñu def technologie da cee xam euh, surtout ñu def euh, estrade 3 yooyu noonu roue dentelé yi en fait boy dugal vitesse de de par roue d'entrée des génne ben roue double ben roue tas donc loolu mooy tax oto bi en fait di gëna a gaaw euh, li daw en fait bois euh, euh, de vitesse bi mën ko mën ko supporter donc arbre par arbre la da arbre boo xam système de boy double vitesse donc roue dante bi day génn beneen roue dante dugg tu vois donc loolu mécanicien yi xam nañu ko bu baax donc loolu moo tax ñu naan la automatique gear shift léegi gear shift boobu roue yooyu ni ñu koy déplacé tam moo ko rendre automatique ba mën mu am boîte automatique soxlatul ngay dugal vitesse da ngay def si dee bi rek mooy drive et puis ngay dem moom muy dugal boppam ay vitesse di changer ay boppam ay roue donc loolu moo tax ñu def automatique gear shift donc kooku ki ko développé mi ngi tudd Richard Spike donc. Euh, c'est en 1932 Moi aussi mon créé lu l'unité def lavage de car automatique donc automatique la euh, lavage de car donc automatique lavage automatique donc des véhicules les lumières aussi de de direction lumière direction quel kan moo à mon oto direction donc lumière direction da un signal gauche ou un signal droite wala da stop donc qui nous wax aussi Richard spikes, mon quoi de frein de sécurité c'est-à-dire frein assisté moom aussi moo ko créé moo ko moo ko moo ko développé du moins def ko licence à son nom tu vois donc li ma fi wax nii yëpp ay noir ñoo ko créé noir yooyu ñu dañoo am ay brevet yu ñu def seen tour am na ñaar ñoo xam ne nii dañoo judd ci jaam dañu jàpp ne ba 1930 daanaka 1800 1900 jëm ay 1800 euh, et quelque 65 jëm ay kaw

ndaxte bu njëkk ba même bi ñuy abolir esclavage après guerre de sécession amoon na loi bo xam day tere bép noir mu daal di protéger wala mu am luñuy wax licence ci limu créer création yu su bari bi ci gëna cher luñ ko danaka luñ ko kiwé moy 100000 dollars am na si yoo ni ay 50 dollars 100 dollars lañ ko jaayé tuba bi tu vois ñu jaay ko forbe tubaab ñu jaay ko ñeneen ak ñeneen ñeneen donc man waxuma ñuy wax naan ignorant Aïssatou Diop Fall ndaxte boo demee ba toog télévision naan tubaab bi ñoo moom oto kon ñun xam nga am ñoo xam ne dañ naan non bàyyil di wax sax tubaab mais ñun dañoo dem école jàng tubaab ñu imposé ñu ko ñu jàng ko ñun ñoo jàng ñoo dem tamit jàng anglais mën naa dem man soxla naa jàng.

ay noir ñoo ko créé bàyyi leen di di que noir amul xel di japp ne lu baax lépp tubaab mu complexe ak bu bono bono bono bon su ko télévision bo tel euh, Sénégal lañ il est normal que ñu wax leen li amul fondement ben

ñeneen ñi toog di ko war naan di di di di di di di ruux ñi di ki wala ñi nopi xam nga parce que mais télévision c'est pas c'est pas un endroit bo xamne c'est pour diviser lii nag moom mooy division de de de fausses nouvelles xam nga incurie bi ngeen di di dugal ci bop nit ñi euh japp ne ñun amuñu xalaat amuñu dara mais c'est parce que plateau yi dañ dañ pauvre ci journalistes yoo xam ne nii xam nañ lu ñuy liggéey xam nañ lu ñuy wax te dañ def ay recherche donc wàññi seen greffage ak seen maquillage yi te yokk livre ak seen xel yi jaajëf